wàllu dinañ ci dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw Cheikh Omar sama jàngat par rapport ak euh, Cheikh Yérim Seck mi nga xam ne fu ñu toll nii nag moom takku na pare na justement pour jàmmaloo ak ñi fi nekk. wax na dëgg parce que le fait que moom muy wax ci organisation keneen. waay loolu dinañ ci ñëw promouvoir keneen. waaw loolu dinañ ci ñëw laax jaay laax lekk. loolu dinañ ci wax loolu dinañ ci wax incha allah waay et puis. Euh, man nawloo ko ci xam xam nga man du ma wax kenn yàllaa lay nuyu te gisuma ko. non mais dëggantaan. je te dis peut-être boobu yéen ñi man xam nga damaa teel a dooj ay xale lañ boobu ñu bëri mais en 2012 combat yi mu porté woon en tant que universitaire c'était c'était c'était louable. te réew xam-xama koy doxal te nangul naa ko xam-xamam et euh, comme li mu wax euh, nit ñi mën nañ bañ a wutee gis-gis. Mm. tey boo ko dégloo rek soo waxtaan ak moom di nga xam ni que euh, moom. ndeysaan ak keneen ki euh, professeur Malick Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm. qui était très disponible à chaque fois que mu sollicité ko pour inviter ko. su ma mm-hmm. bokkoon ak moom plateau j'ai pas ma wax damay jàng ci moom. Mm-hmm. et euh, dafa am benn baat boo xam ne il revenait tout le temps dans sa bouche il faut que sénégalais comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Mm-hmm. il disait il faut une révolution des garme waaw oh. je disais mais professeur lan mooy garmi. Garmi c'est c'est la noblesse Garmi c'est les valeurs mhm. le Sénégal doit se construire sur des valeurs et non sur des antivaleurs tout à fait maintenant ça me permet d'entrer ci débat bi ma wax man je suis un amoureux de la démocratie wax naa la ko mhm. <laughs> je suis pour la confrontation d'idées je suis même pas pour les débats de personnes moi je préfère débattre sur des idées sur des euh, problématiques du Sénégal sur des questions de développement sur des questions d'économie et cetera et cetera gis naa la nga dem def affiché ma ne ma chroniqueur nekk du ma chroniqueur bàyyi naa ko xamal tax. apprécier nañ non c'est-à-dire entre dafay baax parfois nit ñi euh, nga wax ñu xam. Mhm. les gens pensent que dañu ubbi micro rek pour nga wax. Mhm. les gens ont les gens euh, moment bi may wax ak yow ni je euh, chef de la division planification et des compétences transférées de la commune de Pikine Nord. Mhm. ma am trois chef de service. yore sous ma responsabilité planification je m'occupe de santé d'éducation de sport d'environnement fi bi may ñëw nii maa ngi nii ci loolu laay yëngu matin midi soir. Mm-hmm. ma rek def ko parce que dem naa ma ma tàggatu. Mm-hmm. Mm-hmm. Mary Teuw Niane qui est euh, directeur de cabinet de du président de la République. en 2016 moom moo ma jox sama lauréat maire étudiant du Sénégal en management au Grand Théâtre ma jóge foofu j'ai fait mon master en ingénierie territoriale management public option gestion des collectivités territoriales dem dem université Lyon dem defi développement durable la fondation allemande ils m'ont remis une bourse madame euh, Cologne Allemagne en 2019 gestion des villes intelligentes depuis huit ans je suis à la télé. Mm-hmm. te pourtant chaque jour damay jàng parce que jàpp naa ni li may wax am na ñu ma ko gën a xam. mais damay jàpp ni ku nekk ak sa identité. Mm-hmm. te Njaay nee na. ñi bokk goj ñooy laxasoo ay buum. Mm-hmm. ñi bokk goj. ñooy lancer ay boum les oiseaux de la même espèce vol ensemble. <laughs> et que comme je suis un amoureux de la démocratie <laughs> la liberté d'association elle est garantie par notre constitution. Hmm. ay nit bu fekkee bokk nañ gis-gis bokk nañ bëgg-bëgg wala bokk nañ melokaan su leen neexee nañ ànd wax dëgg si yàlla. Euh, jarul ma ci sori maintenant quand tu parles de C221 il a raison euh, moi je me rappelle euh, en 2014. oui boobu Cheikh dafa génnoon ci kaso bi ginnaaw bi mu amee jafe-jafe mu amoon. Euh, lancement bi c'était au Grand Théâtre je me rappelle euh, j'ai ami ah man c'est comme ça que je l'appelle Bara parce que nekkatul suma xarit non parce que dama jàpp ne amul kóllëre <laughs> man xam nga ne damaa direct <laughs> man ku ma yëg ma yëg moom xam na man xam naa parce que bi mu nekkee si jafe-jafe bu gestoon man la doon gis mm. mais moom li may wax ni moom ngay dégg mm. du ne c'est mon ancien ami parce que amul kóllëre mm. yëgul kenn maa ko wax boobu ñoom ñaar ñu nga fekkante ci kaso wa bi mu génnee ci kaso bi daf ko invité woon mu lancé activité ça à un parce que amoon na benn tour mu essayé il a essayé en politique ça n'a pas marché aussi parce que aux élections locales demoon na mais système bi mu demoon élection locale mooy élection locale yomb na c'est-à-dire wutal récépissé am nañu bëgg dem nekk ci élection locale amuñu formation politique wala amuñu caution nga mën leen abal sa récépissé système boobu la Bougane doon def en quelque sorte. donc là s'il décide de se lancer en politique personne ne peut lui empêcher de lancer en politique. Mm. Cheikh Yérim Seck c'est un Sénégalais <laughs> am na si sañ-sañ. Mm. maintenant moom mooy xool ni ko day bi muy tànn am na ñu mu woo am na ñu mu woo man xam nga man ñemewu ma woo mais entre nous xam nga ñemewul jël téléphone am naan kaa ma woo la daa am lu may teg. ah bon ah parce que parce que woowu ma daf maa ñeme woo. may ko <laughs> non non seeguñu ko du du question de dara moi je pour la démocratie je pour la contradiction je suis pour les je suis pas pour la stigmatisation libre à chacun d'avoir son point de vue moi j'ai fait exprès mm-hmm. de te dire de te parler de mon profil mm-hmm. c'est important que fu ñu toog sur la place publique Absolument. nous sommes appelés à parler de développement jàmbaar il faut qu'on se challenge sur des idées réew mi liñ gën a soxla mooy xam-xam bu dëggu. réew mi lu ñu gën a soxla fii ñu jëm gis nga euh, man du ma la ko nëbba principe yi du changer te du dañ. parce que dañu jàpp ni ce qu'on fait on fait pour notre pays. Mhm. monsieur le ministre dinaa la wax tey nga xam. Mhm. le président mag Sall sama mag la. Mhm. sama maam lañ ko tuddee direct. Mamadou Talla ministre. maa ngi koy nuyu suma mag la. bi ñuy denc suma papa moo taxaw suma ndeyjoor. domaine bii ma jàngi nii nii nii nii moom moo nekkoon ministre bi. te bu sañoon ma ñëw mm-hmm. nekk ci wetam. Mm-hmm. Mm-hmm. mais parce que mën nañ bokk deret te bokkuñu ay gis-gis. donc pour man li ñu gëmoon démb du changer maintenant euh, la politique c'est question d'opinion bon ku nekk am nga ñoo xam ne dinañ la bàyyi xel dinañ la bàyyi noonu. maintenant bu décider aussi dugg sur la scène politique bah bienvenue dans la scène politique. Absolument. dans la scène politique c'est c'est la mare au crocodile et euh, c'est c'est c'est un monde donc les coups vont pleuvoir jërëjëf donc di leen ñaanal yàlla jàppale ci seen taxawaay ak seen initiative ci ci wàllum débat boobu sax la ndaxte ab diire ngi nii dégg diggante Ousmane Sonko ak Amadou Ba ñoom ñaar kenn ku nekk rek di sàkku sa morom nga ñëw ñu amal ab débat tey ji nag mbir mi am na lu ci évoluer ab diir ndaxte sénéral googee moom dafa wax ne débat bi du mën a am ndaxte loolu su amee dana indi li nga xam ne rek moo di euh, ñàkk respecté wala ñàkk yemale li nga xam ne moo di candidat yi moo tax fii ba la le 17 novembre loolee du mën a am tey ji nag Amadou Ba moom nangu na waaye dafa teg yenn ci ay charte mooy d' abord nag ko Ousmane Sonko jébbal li nga xam ne rek moo di rapport yi mu rendre ko public leneen li aussi mooy bu ñu yem rek ci wàllum économie yi di mel nañuy waxtaan lu jëm ci wàllum sport ci wàllum santé ak wàllum yeneen ak keneen éventuellement euh, Thioune déjà naka nga jàngate euh, tey tontu bi nga xam ne moom Ousmane Sonko tontu tontu na ko ak justement les recommandation de l' ancien premier ministre di Amadou Ba. waa xam nga euh, dama man dama gëm dama bëgg sànq maa ngi ko doon wax. oui monsieur le ministre monsieur le ne ko. man dama bëgg ay débat débat d'idée dama ko bëgg. parce que démocratie réew soo leen waxtaanu ci idée rek ngeen waxtaan ci saaga. Hmm. ngeen di saagante. Hmm. walla ñi war a wax céder la place à ñi nga xamante ni ñoom da waruñu sax fekkee ñu normalement si ñu war a wax bu dee dañu defar réew hmm. léegi nag pour ñu éviter loolu ñu ne premier ministre ak ancien premier ministre. dañoo bëgg ñu créer benn débat boo xamante ni cëslaay bi mooy dañuy waxtaane problème réewum Sénégal lu ñu jàpp mooy problème réew mi. yenn yi tuuma la donte moom tontu na ci tuuma yooyu mais mu kooku ñëwaat tontu indi su ma sañoon sax dañuy yaatal débat bi ba dugal ci leneen te leneen loolu aussi am solo parce que bu fekkente ni da ngay ñëw tuuma yi kese di ci wax solo si mën na ba ñu bëri parce que dafay doon yaama. duma def moo ko def moo ko coow li et après. oui sur le vécu quotidien des Sénégalais ça change quoi. rien. rien ce sera des paroles des paroles en l'air sinon loo li nga dégg rek ngay c'est du déjà dit parce que Ousmane ko mënu fa wax lu bees lu dul lu mu waxoon ne chiffres yi di nga déggaat 1892 milliards yooyu ñu ngi ko déggaat 602 milliards aussi ñu ngi ko déggaat Amadou Ba a répondu lundi il dit lii la may lii la ñu may waxal yëpp dara amu si. Oh, mosuma am terrain wu depuis ma nekk ci nguur gi nee na la aussi depuis ma nekk ci nguur gi yor nekkuma ci kër boo xam ne état moo ko jox mais soo ko questionné ci loolu qu'est-ce que de plus concernant ce ce, ce sujet rien c'est par contre soo indee mbirum emploi de jeunes mais loolu dañ ko war waxtaanee le Sénégal majoritairement ay ndaw la mais l'essentiel de ces jeunes là n'ont pas de travail il se réveille, se couche tard, se jours sur 7, 30 jours, euh, 30 sur 30, 12 mois sur 12, amuñu lu ñu téye concrètement. oui amuñu am ñu salaire ñu jàng def ñu musuñu def stage ñenn ñi ñooñu ñëpp nga dajaleen ci réew ñu ne fi ëpp ñoo fi ëpp.